yi ñu dellu di leen nuyuwaat di leen sant si ànd bi nga xam ne yéen a ko ànd ak seen télé GRTS radio and television services comme ni ma leen ko waxee woon si njëlbeen jamono yi ñu ngi fii si Independence Stadium ñëpp xam ne leen moo ñu fi indi bu leet bu ngeen soog a xew si Gambien bi war a def bëre dóor ana see suñ mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ba Sénégal maanaam ñi nga xam ne ñooy écrit sos dóor dóoraat soos soosaat tey nag moo war a bëre ak kii nga xam ne mooy suñu mbër bu ñu xamee si Zinemori waaye mbokk yi bala ñoo gën a sori rek du ñu def dara lu dul ñi nga xam ne ñoom leen seexal jotaay bi ñoom it ñu dal di nuyoo balaa ñoo gën a continuer. jërëjëf Linguère mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi fii ci Independence Stadium béréb bii nag tey mooy ñetteeli yoon ñi di fi def làmb ju mel nii njëkkoon na fi diggante Mor Fadam ak Tyson Mouhamed Ndaw Tyson Ndaw Tyson door fi. Mor daan ko fii nii jël bu set ñaareelu yoon bi mooy diggante dun xaaf ak Gambia dun xaaf Gambia dóor ko ci ñaar fukki sekon tey mooy ñetteelu yoon bi Zos ak Djindé Mori la ndeysaan ñoo war a dajee tey grand komba ak yeneen lam yeneen combat yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci kanam jamono ji nag kii nga xam ne mooy leket bu baara moo war a dajeeg bébé sos bu sos écrit ca dakaar ñoom ñaar ñu ngi jàkkaarlek li nga xam ne mooy mbooloo mi ak ñi nga xam ne ñoo fi toogal borom réew mi ñu ngi leen a présenté ak ñetti refale yi bébé sos a yëkkati loxo yi noonu ndeysaan kooku mooy bébé sos leket bu baaraa ngi noonu Uncle Johnny bés baa ngoog alaaji caam bés day wuyu boroom bés du tuuti

jaay ko doole duuma ko jël ko yóbbu ko ñaalum jaam kon ñu dem si combat bi Linguère. jërëjëf oncle ñu ngi lay gërëm mbokk yi di yi kii nga xam ne mooy Leket ak Bébé Zos ñoo nekk si biir gi kii euh, nga xam ne mooy Leket daan na kii nga xam ne mooy Bébé Zos kii nga xam ne mooy Leket daan kii nga xam ne mooy Bébé Zos maanaam Gambian bi moo daaneel kii nga xam ne mooy sénégalais bi Leket ak ki nga xam ne mooy Bébé Zos yàgg neen nag waaye wala mun nañoo wane bëre bi yàggul fu mu nekk nii ki nga xam ne mooy leket mu si biir géew gi di fecca mbokk yi dafa mel ni rafet bi nee na ki nga xam ne mooy leket moo jël ndam li alaaji jaabi na gis naka la bëre boobu demee. alaaji am bëre bi gaaw na. bëre bi gaaw na benn minute la kii di leket bu baara xeex nañ xeex yu métti waaye leket bu baara dafa dóor songu fekki ko jël benn dal di wëndeel moom daan ko Bébé Sos daan nañ ko muy njëlbeeni mbor bi nga xam ne jógee ko na ñëw fii ci gàmbia tey di ñeenti fan ci weeru maaj 2012 fii ci Independence Stadium kii di Leket Boubacara dëkk fii ci Gambia daan na Bébé Sos ba ca Dakar ca senegal ci njëlbeenu combat Oncle Johnny lii bu continuer foog naa ne leneen dina feeñ kon Leket Boubacara génn na ci mbir yi moom xam na fi mu féetee ndeysaan Papa supporters yaa ngee tàccu supporters yaa ngee tàccu ki nga xam ne mooy Leket bu Bara Oncle Johnny bés bi daana yaram nit ñaa ngi kenn ku nekk sa xol sedd na tey ndax diggante Sénégal ak Gambie ay doomi ndey lañ kenn mënu koo xaajale maam yi benn lañ ñii dañoo wax ma ne ñun ñu ma ne boo fi amee bàjjen am fale maam nga am fale nijaay am fi yumpaañ am fale baay am fale nijaay kon nit ñi benn lañ Boom. léegi ñu ngiy xaaraat beneen combat diggante Luc Nicolaï ca Ikiri Sos ak jàmbaar jàmbaar nag war ta ragal tey dinañ xam jàmbaar lan la ma ne ndeysaan oncle Johnny bés ki ñu ko tuddee jar na ko matane ko fees na place am na ci réew mi développement yoo xam ne kenn ku ne teg nga ci sa bët foo wëlbati ko xool gëstoo gis li nga xam ne moom la fi His si def ba tax na si ñu ko tuddee bés mu mel nii dëgg-dëgg wàcc na loolu la olof di wax ne sox si ko buñ ca weexee xàndoor ab xaalis wàcc na waaye ki ñu ko tuddee Uncle Johnny wàcc na ndax kuy dab ngelaw di ca di ca naan bu dajeeg calli weer war taxaw Uncle Johnny ma bàyyi la kàddu nga am leneen loo ci ñambaas ndax olof ay wax ne lu cin xat-xat xorom xecc jerejeuf alaaji ana ñuy wax rek ci li xew ci lamba ji li xew ci lamba ji reyna ñi ngi dekk bak yi nga xam ni mi ngi fi jib niñ ko waxee won sank mbeur yëpp tous nañu am nañ fi ay gan yo xam ne jóge nañ ba Sénégal ñew nañu ay mbeur yo xam ni ñi ngi fi nak lu maga ngi ci biir kër gi tey ndaanaan lolu moy kan mom lañuy wax wali cuun ku xam wali cuun xam doomi ndeyam ndey xam yaayam ndey eh, ngomba mbiloor waaye di xam ne si ndaanaan lu mag la bokk ndeysaan ku xam di ku cuun di magam di nga xam ni ndaanaan lu mag la wali cuun moom moo fi nekk tey fas yéene woy si làmba ji kon dafay mel ni li nga xam ni moom la président Jammeh doon ñaan africain yëpp ànd doon benn intégré waaye dañuy wax ni intégration africaine waaye nag Sénégal bi la ñu wax suñu intégré ba noppi ñi bokk ndey bokk baay nga xam ni ñoo bokk lépp wolof bi fii mooy wolof bi nekk senegal soose bi fii mooy soose bi nekk senegal séeréer bi nekk fii mooy séeréer bi nekk Sénégal joolaa bi nekk fii mooy joolaa bi nekk Sénégal ñu wëlbatiku nag boo bokkaat nag lii di suñu aada muy aaday lamb alaaji jàmm jërëjëf oncle Johnny léegi nag ñu ngi waajal combat bi nga xam ne mooy jàmbaar jóge ko ci am forces dëkk fii ci réew mi war a daje nga xam ne mooy lig ne ko